c'est le cas de rachid mais l'arachide chaque campagne c'est le même problème bi ñuy wax nii nii da je te jure daaw c'était les mêmes problèmes. dërëm du Sonatel amul xaalis. dërëm lañ ci wax dërëm. opérateur bi ba dërëm bi nga yokk xam nga tu tu fais mal plus qu'autre chose. yokk nañu ren ren yokk nañu. ci njëgu arachide bi. gulet gulet pour la première fois ñu yokk gars yi yaakaar ni yokk bi yokk bi nekk te yokk bi dërëm la. voilà. donc même ah. c'est vrai que dërëm bi soo ko calculer en termes global c'est des milliards mais le paysan ah, euh, su su yokkee dërëm c'est c'est à la limite tu l'insultes ñoom noonu lañ koy jële donc il un problème de de communication pour xool filière bi comment faire pour que ça soit rentable parce que honnêtement je je pense que le gouvernement n'a pas réfléchi yow tu à deux cent quatre-vingts le chinois il vient il l'achète à six cent francs il double ton prix. ba pare nga ni béykat bi bul bul jaay chinois bi te moom ba muy bay fekke woo. y' a quand même un yi sax gisul déggul. y' a un problème sérieux donc là c' un problème de de de choix c'est-à-dire que foofu par exemple voilà le mauvais le exemple du libéralisme on a libéralisé la filière. mais le producteur c'est lui qui trinque c'est ça le libéralisme c'est-à-dire que am nga Sonatel tu as opérateur opérateurs tu as le système il est organisé tel que le producteur mënu ci gis boppam ok mais yow ce qui t'intéresse c'est ce que l'État va gagner l'État va gagner des milliards chaque année Bon, c'est pour donner l'exemple euh, bon, de, de, de, mais c'est la même chose pour, le, par exemple,